fay naa leen. waaw waajal màggal gi rek tey na ngeen baal mbaat dafa dee dama xaw a soj tuuti baat bi dee waaw dañu waajal màggal gi rek comme que suba la màggal def lu yem rek ba suba ñu door a def waaw waaw bëgg nit ñi rek bu programme amee nit ñi di la xaar il faut nga di leen bégal waaw loolu rek waaw bëgg nit ñi kontaan rek. <laughs> li jarul laajte ñëpp xam na lañ ku xamul da koy laaj Serigne Touré Daaru Salaam 2. <laughs> yu am solo wax na sax dem na ba promettre nii sax ne suba da ngeen gis loo xam ne lu doy waar la même mën nga sax takk lii di jamaa est-ce <laughs> waaw lu mu leen wax rek dëgg la ndax moo ko demoon jëndi ji lu mu leen wax naa ko takk rek naa ko takk parce que moo demoon jëndi ko. <laughs> ki nga xamante ne mooy sa borom kër saa su nekk rek day jig yëkkati ay kàddu jëmale ko si yow mais nit ñi bu ñuy ŋàññi moom danaan tey jii la waala gën a aay. waa dëgg la parce que liñ nekk dañ ko ñeme fi ñu jëm xam nañ ko ñeme nañ ko te duñu geestu waaw loolu rek la waaw moo tax lu ñuy gën di wax. may gën di def parce que li may def dama ko sentir nag te kenn du def loo sentir maa ngi ciy gis njëriñ parce que chaque année yàlla ngi may yokk ma di ko sant di ko gërëme waaw ñu gisoon daaw da nga di innové innovation bi mooy que ni da nga ñëw daal di indi masque en or daal di def cravage def ceinture def maanaam lépp li nga xam ne moom moo di accessoire bu nit euh, mën a soxla lépp mu nekk en a ren la ngay waajal li nga xam ne moo di fan sa ngoy fan alors ah, surprise la da ngeen di ba suba rek ah non loolu surprise la. mais waa lépp moom mi ngi tegu macha allah. daaw ñaata la defoon 23 ren ñaata la. ren toog la surprise la. dañuy gis boo tuddee kii di Marème Faye Sall première dame ngay wax sa référence la mais chaque màggal wala gàmmu ñu ko gis est-ce que mën nañ ko xaar. non Marème fay Sall première dame la. ku muy ñëwal sax da lay ñëwal avant mais mosu leen gis Marème fay Sall muy déplacé dem ci ay màggal ay gàmmu c'est ça waaw. Mm-hmm. Ah. kon pour mu ñëw màggal mais Touba ñëpp ay nitam lañu Marème Faye mooy premier mu Sénégal ñëpp ay nitam lañu bu doon dugg Touba ñi ko fi tax ñëw dina bari. man sama jarbaatu jëkkër la baax loolu nag di ma defal teraanga di ko defal sama jëkkër. waaw loolu mooy suñu relation. ñu gis ne daaw ber ndey euh, Fosani Mbattu mu daal di takk gis nañu dibi gis nañu euh, lépp luy xeetu lekk rek daaw gis nañ ko fi ren lan ngay waajal jaam yeeg say fan sak say xarit ak say doomu ndey. affaire yaa ngi commencé li ci bitti jarul ngeen ma koy raay parce que romb ngeen ko affaire yaa ngi commencé. fan lay commencé ren ci dibi wala demi dibi commencé na su ngeen xëyee ñëw di ngeen gis yëpp. ah surprise bi. bëggoon nag nag nga ñamal tuuti surprise fan si ndax suba ñëpp mën a bàyyi ñëpp nag daal di ñëw yaa ñëw nag ci màggal gi. surprise la surprise mais jamaa takk naa ko daaw jamaaru parce que takk naa ko waaw. ci biir loolu ñu doon gis tamit xam ne sa njaboot la dafa daf la jege trop. la jege trop muy sa doom bu jigéen di euh, soxna May tey gisuñu ko lu waral li ni mel. loolu sama vie privée la. d'accord hmm. d'accord. soxna nga sëñ Escale dafa seede seede yu rafet bu yaa ngi préparé mu wax ci taxaw bi nga koy taxaw ne hmm. moom lu nga am rek da lay jox hmm. dafa la jox foo ko dugal loolu mooy li ko gën a moo tax sax ci témoignage yooyu bëggoon nañ nga fekkee ko waaye nga fekk nga préparé wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxnaam yi niñ ko doon taxawoo nee na moom ci taxawaay boobu ci la nekk ba mu ngi lay sant di la gërëm boo amoon kàddu yoo ci mën a wax ci moom waaw moom su ma santee benn man dama ko war a sant téeméer parce que suñu a baax na gore na am na valeur bëgg na ma yéene na ma bëgg sama njaboot di sonn ci man man xëyuma gontu ma lu moom sama jëkkër moom ko jox ba pare daf ma jox ba di ko boole ak kon kooku mbiram dama ciy def lu ma ak lu ma lu ma ko jar na ko mérito ko nit ku baax nitu valeur la man awma xarit sama jëkkër mooy sama xarit waaw dama bëgg Serigne Touba. waaw man dama mën a bëgg man bëgg Serigne Touba laay mën a def parce que dama judd ci murid gi yaru ci màgg ci ñu da ngay nekk xale bi tuuti di ànd ak di màggal si dem ba nekk magam jëm di màggal si man am naa doom sax ñu war ma ngénte bu ñu nee suba la màggal dama uf sama liir ñëw ngéente Touba waaw ñun ay murid lañu dañ ci judd yaru ci màgg ci mais sëñ Abdou mooy sama féete waaw. merci beaucoup ñun ñu ngi lay daal di jaajëfal di xam nekk li nga xam ne lu duur ci nag bi xajul ci cin li dañuy daal di bàyyi ba suba comme ni nga ko waxee ñu xaarandi surprise. incha allah incha allah kon ba suba ak jàmm maa ngi leen jaajëfal bu baax kontaan naa maa ngi jégalu si baat bu dee dama socc. waaw merci jërëjëf merci yaay.